simila Macky Sall de bu fegalee ci boppu réew Sénégal du chômer réew mi quotidien nee na am na liggéey xaat Macron moo ko def envoyé spécial pacte de Paris pour la planète et les peuples yéene kaay bi yemul ci tabb ko rek de daf ko yit sargal ca boobaleb ndaje bés bi la jour ne maa koy dëggal Paris teg na ci Macky ndax Macron nee na moom Macky Sall daa fexe daal ba ñu baree bari mën a bokk ci élection yi ñu jëm dundal démocratie bu Sénégal nee na it Macky dafa aar Sénégal ci ay fitna ki yëngu ñetteelub bañ ko doon xiirtal journal bi ne kon bañ def ñetteelu mandat day fay tribune ne fay gi nag mooy Macron embauché na Macky mooy doon envoyé spécial 4P bu nguuram gi jeexee laas ne kon Macky am na ci lum dal loola mu dal nag la ko ay xaar Le Soleil moo xëy dinu ko wax nañu mission wu Macky Sall mooy doon sukkandiku ci leadership am ak ay xameem ak dugg-duggam lijjanti ay financement ngir ñu xeex réchauffement climatique ak ñàkk di pauvreté Macky mooma ca l'info booba jamono société civile baa ngi koy teg pression ngir ñu jéego adopté luwaa bi may ñu mën a jot ci xibaar yi nuy soxla yéene kaay bi ne Afrique soowu jant ma ngi cay def ay jéego ndax luy tolloog fukki réew adopté nañu bi lépp luwaa ñeent doo nga ci des nag bokk ca ñoom Sénégal mi ko tëdef ba tey yéene kaay bi it bu weesoo yéex googa gis na it yeneen gàllankoor ci yoonu booba lépp luwaa enquête booba jamono naan ñu ndox du bàyyi yoonam a Seck tekkaaral ganu ko xamee woon delluwaat na ca journal bi ne jamono ji ñëpp di wëree parrainage idi moom patt la def daaw doba noppi dafa bokk ci communication wam waaye pattam gi yépp enquête nee idée ngay liggéey ca suuf ndax mi ngi waxtaan ak ñu baree bare ngir mën a taxawal projet de société bum nar a tegal yi ngir ñu tabb ko ci bopp réew mi di Sénégal Habib Sy di keneen ku bëgg ñu tabb ko ci bopp réew mi mi ngi wax ci 24 heures ci mbiram Ousmane Sonko ak élection présidentielle yu ñu dëkmal joxar bi administration gësëm UMS di kuréel gi jaboote magistrat yi Habib Sy ma yi yëngu yépp Côte d'Ivoire rawatina administration ba yore wàllu élection condition ya moo sooke lépp Habib nee na it képp ku lànk doxal dogal bu jóge ci yoon ak koo mën a doon yaa ngi doyadal ak tuutal justice loola tax mu ne union des magistrats du Sénégal lii xew moom mënoo leen koo seetaan ndax xel nanguwu ko te itam kenn mënu koo nangu cim réew ali Ngouille njaay moom li ta nangu ba tax mu di ko ñaawlu mooy ni nu dàqee yenn préfet su sous préfet yum jàpp ni liñ ko jege dong moo ko waral man ko waxee ca Walf Quotidien wax ko it ci Libération nee leen ko ba tax ñu teggi leen fa nu ne woon lu dul ne dañ koo jege bokk ak moom it Linguère ñu des ci libération mënu yóbbu Bargny nañu ab gaal gu yaboon ay migrants moo fa teeree ñooña Bargny googa leen jóge woon ñetti fanweeru novembre waaye bañ demee ba digg géej seen gaal bëgg a suux ci la ñu wàññiku ndànk delluwaat fan jóge woon l'observateur ca woole waxtu dinu yeggee kàdduy migrant yu dem demati ñu wàññi leen waaye taxut ñu baax kenn ca ñoom ne juróomi yoon a ngi nii may dem ñu di ma delloosi boroom tegee loola daa wax ci bor bi état amel yenn entreprise u réew mi ba tax ñooña fatt bay waaj a faatu BTP yi journal bi nee na ñetti téeméeri milliards leen état amel ñu baree bari ci ay liggéeykat loola tax seeni liggéey léegi tey ñu ñàkk ko journal bi ne université privée yi ñoom état mi ngi leen ameel fukki milliards ak juróom benn jàpp fukki milliards ak juróom ñett réew mi quotidien moom dinu xamal ne fukki junniy baguette mburu teg na nanu ko loxo démb ci ndakaaru ndax nanu koy joxe charte ya ca aju lañ waxtu ne ñu yëngu ci wàllu secteur agroalimentaire sàmmonte wunoog àq ak yelleefu liggéeykat ya ndax ñu bari ca ñoom dañu leen a négligé yéene bi ne liggéeykat ya fay wopp yépp daanaka fukk dong lan cay faj ci téeméer boo jël ña ca des ñépp kenn lijjantiwu leen wayjuru ndongoy ñoom di sàkku ci vox populi ñu lijjanti école ya la fay xew te mooy tux mu metti mi cigarette électronique yeeg chicha yee ngi toj école yi tiital wayjur yi buñ sukkandikoo ci yéene bi jox kàddu FENAPES ak UNAPES ci njiital l'école yooya gaawee lanuy ñaawlu it mooy nanuy paqueté cigarette sa jekk-jekkal ko ba ndongo lu ko gis bëgg ko loola di leen xiirtal ci tux yeneen xale yu doon taxawaaloo ka yelwaan toll ci ñaar téeméer vox populi nee na roñ nañu leen ci mbedd mi yóbbu ca centre gindi maam mbay ñaamoom yóbbooti na ñeneen ca kanam yoon les échos ne procureur la kalaame ji ña ko doon tuumaal ci réseaux sociaux yi ne dafa ëmbal ñaar ñu bokk ci journal bi ma ngay joxoñ baaraam tuuma ñim seen liggéey du lenn lu dul xëy di yàq deram suba ba ngoon fekk mu gont dugal appel libération mi nu ko yëgal ne loola tax Diop Taïf des ci kaso bi ba tey Pape Abdoulaye Touré moom mi ngi ci coma gannaaw grève de la faim bu mu sumb loola lépp nag taxul ñu évacuer ko mouvement Sénégal notre priorité mooy ñaawlu lii ci libération Alioune Mbaye Nder booba jamono ci bés bi le jour di ñaawlu wax yu ñaaw yi nu teg ci digganteem ak Youssou Ndour Aliou Cissé moom stade nee na téye na fi mu ne équipe bi mu war a yóbbu ci coupe d'Afrique des nations gannaaw liste ba mu fësal démb ñeel jongante yi Sogo liste booba it ba ko réew mi quotidien jàngatee lim gis mooy Aliou Cissé daal stabilité la woote maanaam coppite yu bari amu ca lamb ji war a am ëllëg te war a dox diggante Eumeu Sène ak Tapha Tine moo yitteel sunu lamb mi tuddee dimanche ëllëg ji basub dëgg gi sunu lamb ñu yëgalit ne boobale bés la koy door mooy ay combat yu tàng jër foofa la ñuy jeexalee ñaanal leen ba altine incha allah